Cheikh Tidiane sama waay la jàmm ñal jaara busuk wala man se bi jaara fekkee dégg waaye it mu wan ñu gis ne dara ñor ko lu liggéey yi dara ñor ko lu daan doole dara ñor ko lu dimbali ay way juróom waaye dara ñor ko lu dimbali la jeunesse sénégalaise foofu nag bu fa mbir tolloo xale du jug di ci wastu ak doon tur tànk amagul fanweeri at bu amee ñaar fukki ak juróom-ñaar ba ñaar fukki juróom-ñett ca lay yem lu nu war a saluer la lu nu war a delloo lu nu war a sargal la xam naa ne rek tubarkàlla waxtaan wi dëgg ak bi yi ñu ko yéene jëme ci jëmmam suñu jaar bàyyi ba mu yegg si ñu wax ko ko ci ay kanami mbokkam ak ay kanam kanami nawle waaye li ñu bëgg rek mooy artiste bi nga xam ne moom la lu jël pour mu monsieur premier partie bi mu ñëw tàmbali na xadee ngi yegg si su ko defee bu xadee yegg see rek ñu mën a jóg ci waxtaan bi incha allah tout la presse sénégalaise ñu ngi fi teew yaakaar naa ne tubarkàlla macha allah. boo nee la presse sénégalaise tey boo wootee junni nit danañ teew waaye man ñi ma jàpp na ñooy presse bi matuñu fukki presse matuñu ko mooy ñi nga xam ne ñi ngi ñi ngi yi rek la euh, euh, di ko topp respecté ko te it tubarkàlla fu seen réew soxlaa ñu taxaw ñoo ñooñu tubarkàlla macha allah ñoom ñëpp ñu ngi ci mbooloo mi teew kon sant yàlla la xadi dina am ndam ndax tubaarkàlla boroomu jom la te nit boo amee jom nangoo liggéey loo sumb yàlla defal la ci ndaw ak kon nag sama gars yi laay bàyyi ñëw bi tàmbali première partie bi tàmbali joué en attendant xat yegg si su ko defee incha allah ñu mën a jublu ci waxtaan bi ni mu waree jërë ngeen jëfati waaw waaw jëfati. mbokki internet yi macha allah mbokki réew mi macha allah mbokki bitim réew. li ngi doon xaar yegg si na wara ba jëm na kaŋ waxi mag jëm nag daal te faw jël laam wàcc ma daan naa la wóoru ku daan da ngay féete kaw jàmbar jàngi jigéen ju baax jaangi jigéen ju gore jàngi jigéen ju am jom jàngi jigéen ju nangoo liggéey jàngi kooku mooy Khady Légume une jeune fille de 27 ans à 28 ans am jom yor tool di ko bay te lu mu bay ne sama réew a ko moom tubarkalla macha allah consommé local. di bay ci réew mi di jariñu ci réew mi di dund ci réew mi di lekk ci réew mi di noos ci réew mi boo dee ñu suul ci réew mi Khady Légume yaa gëm sa réew Khady Légume yaay vrai patriote Khady Légume yaay yaa yaa bëgg Sénégal yow la Sénégal ñor jukkuli Sénégal yow la ñor doxal Sénégal yow la ñor waaye Sénégal jëm kanam jeunesse bi ku ci nekk am ci lu mu jàpp benn ndaw benn pexe yow mii la ñor ma am ci yow kontaan bu rëy a rëy am ci yow mbégte mu rëy rëy tey di inauguration Khady Légume Khady bi nga yegg see presse bi tiim la Sénégal gépp fàq ñoo wuy la Khady lan nga yëg. ok maa leen di nuyu di leen siyaar dëgg yàlla. salaamaaleykum. maa di nuyu di leen siyaar yéen presse yëpp. kontaan aussi ci accueil bi ak ak déplacement bi bàyyi seen yitte yëpp ñëw wuy si ma bu baax a baax avec mon frère Omaro ma lay remercier bu baax a baax joxal professeur. jërëjëf jërëjëf Khady mais Khady li ma laaj dama am ñaari question ci yow doo ko jox monsieur. waaw Khady li ma bëgg a laaj mooy jeune fille bu toll ni yow ban jom ak ban ngor moo la dugg ba nga wut tool di bay waaw nekk jeune xam ni liggéey mooy développement dëkk. l'agriculture la voie du développement mooy dëkk boo xamante ne nii bu liggéey bu bayee bu sonnee am lu mu lekk bu bayee bu amul lu bu bayee fu mu jaar dina am lu mu lekk parce que bépp dëkk boo xam ne day pratiquer agriculture tey amuñu problème mu lekk ak naan wala vie bu donc moo tax ñuy encourager jeunes yëpp pour ñu focus ci mbay focus sur l'agriculture à tous les jeunes. Xadi Légumes kañ ak kañ lay ubbi yan heure ak ak ak ak li nga xam ne mooy mooy mooy mooy distribution bi ak livraison bi nu muy demee. waaw daañu dañuy def supermarché légumes parce que ñëpp xam nañ dañ daan def vente en ligne. léegi nag bu ñu demee ba population bi soxla ñu ñu wut base boo xamante ni pour revendeur yi ñi mun ñu fekk ñu mën leen accueillir mais dañ leen accueillir ci agriculture surtout l' agriculture accueillir leen ci développement parce que bu ñu agriculture c' est la voie du développement moo ko yi les grands restaurants yoo xam ni dem nañ ba di fournir donc mënatuñu basé wu ci dem di ko jëli ci tool yi chaque jour dañuy wut teg ko fi nit ñi dañ ko mën di fekk. mooy fii si rond-point yoo. très bien saa waaw Coumba Khady sama nijaay maa ngi lay nuyu di la ziare loo yëg tey. waaw vraiment tey moom bés bu bés bu rëy la bés bu màgg la nga xamante ne bi ñu ñuy ànd ak Khady ñu gën ma xam ci professeur Diouf lépp loo xamante ni mooy wàllu liggéey bi wàllu bay wàllu sàmm xale nekk ci di ci liggéey ak ay groupement yi muy àndal ak groupe yi nga xam ne projet yëpp. yoo ci nekk ak moom di liggéey tey nag moom bés la boo xamante ni bii bés bu am solo la ndax dafay marqué benn étape ci yoon bi nga xamante ñu ngi koy def mooy lu ñuy tuddee la filière filière agriculture d'accord parce que filière boo ci nekkee dafa am lu ñuy tuddee chaîne de valeur chaîne de valeur yooyu nag boo gannaaw boo maîtriser sa production bu baax a baax léegi nag sa commercialisation moom moo si tegu donc supermarché bi nag tey dafay ñëw taxaw ci étape boo xamante ni bii étape bu am importance ci wàllu maîtrise de la commercialisation ñuy ñaan yàlla fii ak déwén ci heure bi ñu dellu siwaat fi nag pour inaugurer une unité de transformation xam ne moom mooy mottali bu boobaa nag léegi la chaine de valeur agricole déparé depuis production jaar si commercialisation ak léegi nag jaar si transformation des produits loolu doon loo xamante ni bii xadi tey ji modèle la nekkutul ay rêve c'est possible wane na ko ñëpp ñu ngi koy si TikTok bi ñëpp ñu ngi koy suivre ànd ak moom ay jeunes yu nekk bitim réew ay mag yu nekk bitim réew lu toll ci ay junniy nit ñu ngi ànd ak moom tey mu leen inspiré donc tey jii nii lii étape bu ndaw la rek ci wàllu processus bi nga xamante ni bii ñu ngi am na fu ñu tàmbalee tey dafa am fu ñu toll mais am na feneen foo xamante ni bii foofu la ñu jëm di ñaan yàlla mu mu àggali si ak jàmm jërëjëf. jërëjëf sama nijaay bismillah kon ñu dem aja xar yi. di sama waay la jàmm ñal jaara bu wala ma sa bi jaara